waaw li ñu dajale mooy dañu doon ci turu njiitu réew mi président Macky Sall euh, doon jox décoration dans les ordres de Lion ñi nga xam ne tey c'est ordre de mérite euh, dañ leen distingué depuis 2018 euh, xëy na nag xat-xat yi ak euh, xëy na nii euh, événement yi tax na ba mënuñ leen doon dajale ci benn cérémonie na mu waree jox leen seen i raaya donc loolu moo ñuy dajale woon fii 2018 ba léegi juróom fukk ak ñaar. agent ministère des pêches et de l'économie maritime nga xam ne jiitu réew mi daf leen distingué woon ñoom lañ doon jox tey seen raaya pour que ñu mën a am seen i këyit yi ànd ak moom ak seen i diplôme ak lu ci am. lan ngeen si jublu. jublu ci rek mooy d'abord sant leen gërëm leen euh, magnifier rafetlu liggéey ba nga xam ne ñu ngi koy defal réew mi di ko defal donc askan bi fii ci biir ministère bi. waaye loolu it ñaaxaat ña ca des euh, képp bépp Sénégal bëgg nga tey euh, ñu xàmmee sa liggéey rafetlu sa liggéey joxe sa liggéey ci exemple te foog naa ñoom exemple lañu ci seeni i exemple lañ ci seen i njaboot te loolu dafa baax ci Sénégal ñuy wane ñi nga xam ne dañu dañuy liggéey ak pas-pas liggéey ak gëm seen réew liggéey ak njëriñ amal njëriñ euh, askan wi kon loolu lañ doon def tey jërëjëf